dañ may ñaan ma tënk ko ci wolof ah bugguma tooñ suma mbokk yi dem jam ñaajo lëndi de wante am naa yaakaar duñ ko tënk ci wolof mais ci gàttal daal di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm tamit euh, d'abord la présence de la presse euh, ñëw teew si fii tey en di gërëm di sant le bureau municipal ak le conseil municipal de la ville de Dakar di gërëm di sant euh, suñu mbokk yi nekk ay maire ci biir département de Dakar ak ci région de Dakar ak fépp fu ñu mën ti bàyyi ko biir Sénégal ñëw fekk si tey euh, jotaay bi gërëm tamit di sant tamit euh, techniciens yi ak experts yi moo xam ay professeurs moo xam ay docteur ñëw ne dañuy bokk seen xalaat bokk seen xam-xam ak ñun euh, ñun mbokki ville de Dakar ak ñun askanu Dakar nu ngeen ko xamee euh, lundi la ñuy amal fii biir Dakar lu ñuy woyee le forum mondial de l'eau waxtaanee ndox biir àdduna bi parce que ndox mooy la vie mooy àdduna Euh, daanaka ndox ci lu ëpp solo ci àdduna euh, ci ci la bokk moo xam ci béykat yi moo xam ci nappkat yi moo xam ci sàmbakat yi moo xam fépp fu nit mën di bàyyeeku te di mindeef di dox ci kaw suuf si ndox dafa am solo ci sa dund moo tax ñun ville de Dakar ñun ñoo sàkk woon bitim réew mën a am possibilité organiser fii Dakar forum mondial de l'eau may jaajëfee nag ñu ma fi jiitu euh, ñoom ci seen taxawaay moo tax tey Dakar mën a accueillir lii di forum mondial de l'eau forum boobu nag ñun ville de Dakar suñu gis-gis mooy au-delà de la diplomatie de l'eau mooy ñu mën a waxtaan askanu Dakar mën a waxtaan ak mbokk fii euh, ci lii di ndox thématique bi nag bu ñu proposé mooy waxtaan bu ñuy wootee biir Dakar mooy ci gàttal mooy l'eau à Dakar ak Dakar dans les eaux l'eau à Dakar mooy ndox fii ci Dakar Dakar dans les eaux mooy Dakar ci mbënn bi l'eau à Dakar euh, yemul rek ci ubbi robinet bañ a am ndox parce que am na ñu nekk fii biir Dakar euh, moo xam ay béykat lañu particulièrement suñu mbokk yi nekk dans la zone des Niayes di am ay problème mu ndox moo xam usine yu nekk biir Dakar ñuy daan seen doole biir Dakar moo xam dañuy yëngatu ci ay BTP moo xam ci lan lañuy mënti yëngatu am tamit ay problème pour mën a am ndox moo xam tamit Euh, lu ñuy woowee suñu cadre de vie moo xam ay jardin ay pelouse ñoom tamit dañuy soxla am ndox euh, hôpitaux yi donc su ñuy wax ci waxu ndox biir Ndakaaru day day englober lu bëri wante Dakar biig rek amoon na fi euh, benn incendie ci salle des ventes bañ fay dem suñu mbokk sapeur pompier yi am fa ay jafe-jafe lool bu mën fay safara bi ndax lan ndax ñàkk am bouche d'incendie bi Dakar dëkk bu mel ni Dakar lu fi toll ci ñetti million bu doomu aadama ñi fi yeewu te amul benn bouche d'incendie moo xam ci université yi moo xam ci yenn hôpitaux yi moo xam ci yenn marché yi loolu euh, lu bàyyi lu lu lu jar bàyyi xel la Euh, Dakar nag dans les eaux mooy Dakar ci mbënn bi ñu mën ko waxtaanee tamit parce que ay mbokk yu bëri ñuy yeewu fii biir département de Dakar ak ci région de Dakar daanaka du ñu yàkkamti nawet loolu nag foog ñu waxtaanee ko parce que dafa jaaduwul ci dëkk bu mel ni Sénégal yàlla baaxee ñu ay nit ñu am xam-xam moo xam ay architecte moo xam ay urbaniste moo xam euh, fu ñu mënti bàyyeeku mais ñoom daanaka saay bu ñuy wax ci waxu euh, tabax dëkk bu bees seen xam-xam màcc na ci lool ñuy toog tey di gis Sénégal particulièrement Dakar ñuy tabax ay dëkk te assenissement du fa am tey suñu demee tey biir département de Rufisque région de Dakar ñu xam ay gox ñu mel ni ay Kër Ndiaye Lo ay Sangalkam ay Njaxira ay Bambilor ay Kër Massar ay Lac daanaka benn assenissement amu fa je pense su ma juumulee Tivaouane Pël rek moo am assainissement kon loolu tamit foog ñu waxtaanee ko biir dakaar bii bëri na ay bërëb euh, ay nit di fa yeew amuñu fa benn assainissement te état mooy joxe permis de lotir état mooy joxe kayit pour nga mën a am courant mën a am ndox. ak mën a am yaakaar mën a am kayit moo xam dañ koy woyee bail moo xam dañ koy woyee titre foncier moo tax ñu ñu wootee waxtaan bi parce que Dakar toll na tey euh, fu ñu nar a toog ñu waxtaanee suñu dëkkuwaay ak waxtaanee tamit suñu mode de vie bu ci des nag suñ ci eggee mbokk yi xam naa experts yi ñoom suñu waxtaanee ak mbokk yi je pense que ñu bëri dinañ xam. pertinence su thématique bu ñu proposé mooy ndox biir ndakaaru ak Dakar ci ndox bi parce que géej gi képp ku dëkk ndakaar di yeewu Dakar daanaka géej gi dafa bokk ci sa environnement géej gi nag dañ sangu géej gi daf ñiy dundal géej gi day taaral Dakar te loolu yépp foog ñu mën ko waxtaane kon nag su ma ko tënkee ci wolof moom laa bëggoon wax di gërëm mbokk yi di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen di ñaanal nag waxtaan bi dañuy ñaan yàlla mooy mu nekk waxtaan buy bu ñuy jural euh, solo solo ci yeewu solo ci xam-xam ak solo tamit bu ñuy bu ñuy may ñu mën a am beneen taxawaay ci nu ñuy dundee ak ndox gi ak nu ñuy gisee ndox bi kon nag mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen di sant.